salaamaaleykum mbokk yi tàmm di topp seen site internet mourides point info tey ñoo doxantuwaat ba si fii ci Darou Mouhty ñu nekk ci wàccaayu màggal édition 2019 comme ni ñu daan defee at bu nekk dañ daan ñëw fii xam ne mooy hôpital bu Darou Mouhty di fii séq ak waxtaan ki ñuy wax euh, docteur fay bi xam ne moo yore service ophtalmologue muy am ay tegtal wala ay xalaat yu bari yoo xam ne da daan indi ci uj pèlerin yi xam ne dañ fiy ñëw lu xam ne dañ daan tegal lu xam ne ay ndimbal ñoom yoo xam ne pour ñu ko ak yoo ne tamit ngir ñu mën ko topp ngir ñu mën a am màggal gu mucc kon duñ def lu dul jox ko mu nuyoo bu ko defee ñu mën a dugg ci biir waxtaan wi. sant te di leen gërëm euh, ñu ngi ziare xalif général des Mourides euh, di ziare encore xalif général xalif bi nga xam ne moo yore Daara mussi euh, di sëñ Abbas ak doomi maam Thierno yëpp ndax yooyu tamit di yokk yore Mouride info. maa ngi lay gërëm te di la sant ndax lii nga yore lii di ci sonn te duñ la jox dara nga wax dëgg lu ñu waxee rek nga ne dama koy def ci maam Thierno kenn mënu lay fay ndax loolu liggéey la daje nañ Dakar bañ dajee dakaar nga ne ma fàttewu ma la di dinaa ñëw gis nga tey jii nga taxawaat ñëw bàyyi sa itte yëpp ñëw te noonu nga koy defee chaque année te li ngay def yal na la maam Thierno fay li ngay liggéey ci waar wi tamit yal na maam Thierno gis na ko yal na ko sañ Touba sëñ Touba fay la ko fay ko sa njaboot ak ñi nga àndal nii ñëpp yal na la yàlla taxaw te li nga bëgg ci euh, liggéey bi daal yaa ko xam te yal na lay ko yàlla defal. jërëjëf euh, docteur ci nuyoo bu am solo boobu kon nu def rek dugg ci biir waxtaan wi day am ay euh, information yu ñuy gis depuis léegi mu xaw a def ab diir ci presse bi ak ay euh, ñu xam na da ngay toog ñu koy muy dañuy wax ne docteur fay bi yore service ophtalmologue gisatul ndax lolu propagande la ngir yak service bi wala ñeneen ñu bess la ñu xam dañu nekk ci marché bi ñu xam ne kenn xamul leen ñu bëgg profiter wu de cette occasion pour berner clients yi nga xam ne ni dañu am ay jafé jafé yu tamine question bu ma neex la ndax euh, am na xam ne ñu ngi ñëw di mako wax wante man chaque fois bu ñu waxee rek damay jël yépp tek ko ci yonent bi ndax gënumako ndax yonent bi mo gën képp mbindef te yow gis nga yow yaa ko gën a xam yónnante bi sax am na baati gannaaw sëñ Touba mi nga xam ne ak maam Thierno mi nga xam ne moom lañ yaakaar tey ñoom ñëpp ku ci nekk am nga baati gannaaw wante yow gis nga tey bi nga ñëwee gis nga tey opéré naa sa kanam ba ñoo ñu ngi noonu dem nit ki nag toujours nee nañ comme li ñu ko wax ci wolof rek oto bi jiitu moom rek la ñuy corné mais oto bi mujj kenn du ko korne boo gisee wax yooyu am rek am na lu tax ndax boo gisee nit ñi doon ñëw ah am na lu ko defoon te nit ñi ba léegi ñu ngi ñëw fu nek la ñuy di ñew bo Cameroun ni ñang fay joggé gis nañ fi ño xamné Côte d'Ivoire bo moy dénga laaj sëñ khalil mbacké gis nañ fi ñëpp ño xamné wax dëgg fu nek la ñuy di ñew fi nit ki na fi nga yaakar rek mom nga mëna dem mu ngi melni marché ba la fa cantine yay bari bari bari fi nga yaakar ne fofu nga mëna jëndé rek fofu ngay dem té yaakar mom man limay ñaan toujours ko waxon na ko bay Cheikh itamit dama ko né sama liggéey bi yalla bu fa yaakar tas té yalla bu ma tass yaakar te bu suma yaakar bu suma yaakar tas sama métier bi té li nga xamné moy am rek moy beew mané ko nak ma ñaanal yal na ma yàlla musal ci bew ndax ay nit buñ jëmee ci kaw ji yow da ngay foog ne yow la te fekk yàlla la te yàlla ma ci musal ci beew ak diisaay bi ndax sama baay daf ma doon wax ne boo jàppee dara nit ñi di tàccu di la xool bul xool ña lay tàccu seetal la tax ñu di la tàccu nga jàpp ko te métier bi moo tax moo tax man tamit dinaa ci taxaw lu ma ci mën lu ni nag lu ñu wax xayrun la mais am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee duñ ko wax ni jaar sama loxo te moom yàlla maa ngi ñaan yàlla daal yàlla bu yaakaar tas ñi koy waxee tamit bàyyi naa leen ak yàlla ndax yow gis nga ne maa ngi gis te tey opéré naa ci sa kanam nga gis ko te malade yaa ngi ñëw di dem donc sant yàlla bu baax merci le docteur kon duñ def lu dul euh, ñëw ci euh, nga ñewal ñu ci les différentes activités yi nga xam ne mom le service ophtalmologue bu poste de santé bu euh, Daru Mouhty di recevoir tay boo ñu defal bilan entre 2018 et début 2009 de 2019 ana loo ñuy wax ci bilan bobu bi tamine wax deug c'est favorable ndax barki démb rek lañ jógee Louga. Euh, di présenter activité bi suñ partenaire bi nga xam ne moom nga xam ko yow yàgg nga koy xam muy Saay Save International barki démb la ñu oo ci bilan bi bilan bi na boo gisee yi tamit c'est très satisfaisant boo weddee nga laaj ko monsieur Ndiaye mi nga xam ne ñëw na fi keroog de passage yi tamit maa ngi gërëm docteur Diop mi nga xam ne nekkoon naa fi ak moom ak docteur Diong ak docteur Ndiaye mi nga xam ne moo commencé ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dalal ko fi ndax gis nga cadre bi mu dëgg commencé yow gisal nga ko sa bopp ndax yaa ko wax mais bilan bi tamit l'essentiel en est que liñ ci opéré bari na ndax li euh, boo gisee liñ ci opéré ci cataracte bari na te traitement bi tamit trachomata yi wax dëgg wàññeeku na ndax boo gisee tey du ma la ne opéré nañ ay xef ndax liñ ci opéré année bi yëpp motu sax 10 pour wan la ne am na yoo xam ne boo ñëwoon fii dama lay wax ne li ñu opéré ci xef war naay mut ay 5000 ak ay 1000 ak lu kenn xamut mais ren ji moom wax dëgg kat euh, xef yi wàññeeku na ba nga xam ne liñ ci opéré sax motu fukk nga xam ne loolu année bi yëpp motu fukk te nga année année dañ doon dem booy opéré ay 1000 nga lu mot le le bilan est satisfaisant sur le plan de la cataracte il faut noter que la cataracte bilatérale c'est rare nga gis ko parce que buñ ko gisee ben la mbala ñaar mbala ñet mom la gis nga xam donc les gens sont à cheval sur cette affection qui est la cataracte donc bilan bobu franchement parlant tous les opérateurs de cataracte tous les médecins ñu ci def de passage may gërem docteur Badiane momi itamit mu ngi ci investir ak suñ docteur Bawone ndaysan mudi docteur Sar. dem na à la retraite yàlla na ko yàlla taxaw mais on a beaucoup fait sur la cataracte technicien supérieur yi nga xam ne opérateur cataracte yi nekk Sénégal ak ñoo ñëpp li ñuy liggéey gis nañ ko ba nga xam ne la cataracte a diminué ba nga xam ne secteur bi ren boo ko xoolee fii sax wax dëgg doo gisati cataracte bu bëri moo tax nga war a xam ne implantation bi nga xam ne bu njëkk euh, Touba amuloon kenn Darou Moussi rek moo fi amoon centre boo xam ne moom la ñuy opéré à part Louga Diourbel Tamba Kaolack Saint-Louis seen feebari bët fi leen doon tuuru moo taxoon mais léegi bi nga xamee ne saay say bara implanté na tuut Mbàkke gis nga am na ay clinique yu nekk Touba lu mot cinq ba 6 di opéré bët Mbàkke gis nga ko am na ku fa nekk Euh, Bambey am na ko fa nekk Xombol am na ko fa nekk Gosaas am na ko fa nekk Tiawoon am na ko fa nekk Daara am na ko fa nekk Linguère am na ku fa nekk il faut nga xam ne kon li fi ñoon ñëw il faut mu wàññeeku donc nga xam ne nag la prise en charge de la cataracte nga xam ne du jeex parce que c'est lié à l'âge mais wax dëgg mu ngi wàññeeku ndax dañ doon dem gis ñun koo xam ne dafa gumbo te fekk cataracte moo ko gumbaloo te loolu amatut parce que ku doom ñaari bët yu am cataracte wax dëgg bëreetut bëreetut wax dëgg kon nga xam ne le bilan est très satisfaisant jërëjëf euh, ci yooyu leeral leeral yi am na solo lool euh, duñ def lu dul ñëwaat ci euh, ci seen relation poste santé bi rawatina service ophtalmologue bi bi nga amee ak les les partenaires tey ban taxawaay la partenaire yi am au sein de la gestion ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen def ci dëkk bu sell bi di daru Mouhty. très bien loolu dinaa ci kontaan ndax tey bu ñu amee lii tey benn partenaire lañ am nga xam ne franchement parlant kooku bu ma toog dama koy gërëm muy SAICB international. parce que Sightsavers international moo euh, fay suñ formation bi ñu doon def Gambie Sightsavers international moo équipé suma service bi yëpp lampe à say Sightsavers ko indi bois de ay verre say Sightsavers ko indi stérilisation li nga xam ne moo ko kii moo ko indi say say Sightsavers moo distribué boîte de quatre Sightsavers moo indi microscope opératoire bi fi nekkoon. te donc loolu yëpp say-say ba def ko nga xam c'est un bon partenaire même boo gisee yow bi ngay ñëw fii locaux yi melu doon noonu te say-say ba moo investir avec la collaboration du comité de santé nga xam CDS la Légui, ñoo investir defar mi locaux yu baax yi locaux yu rafet yi parce que ñoom dañoo waxoon ne ku seet li nga xam ne ñu ngi koy opérer ci centre bi té franchement parlant fi nga xamee ne lañ koy opérer rafetout ñom dinañ ci taxaw ba xar ci sen tànk tubéy defal ñu fo xamné nak wax dëgg c'est adéquat c'est conforme à aux réalités té gis nga ko def nañ ko donc say say bu kenn mënu koy fay wax dëgg même bu doo loolu sax di ngay gis li mu investir ci li nga xam ne mooy tracom ndax say-say ba tracom bi muy wax da koy xeex parce que ñoom dañoo bëgg a éradiquer tracom bi mu jeex takk ci Sénégal moo tax boo gisee y a de ces yoo xam ne mu doon fay pour de camps de euh, trissages formé nañ fii ay euh, les opérateurs de trissage trois personnes ñoo fi nekkoon ñaan ñi kenn ki dafa dem euh, dem mu nga wurosogi kenn ki dem na retraite mais ki nek sam yabal bu legui mu ngi opéré bu weesoo loolu li nga xam moy mooy chirurgie bi antibiotique bi fi def nañ fi ay séance de distribution de masse d'azithromycine plus de la tétracycline def nañ ko 4 bo 5 fois dans dans dans la localité li nga xam moy nettoyage de visage ak changement de l'environnement changement de l'environnement euh, ONG luxembourgeoise bi wax deug taxaw na ci bo nga xam la construction des latrines ak l'évacuation adéquate des ordures loolu yëpp taxaw na ci wax dëgg mu ngi ci lavage des visages bi nak li nga xam momi tamine formé nañ ci les enseignants les relais les badjani gox ñoo ñëpp ont eu des formations yo xam def nañ ko fi ICP yi tamine formé nañ len sur les soins de santé oculaire primaire ñaar yoon bo ñetti yoon loolu yëpp pour prendre en charge les affections oculaires boo xamee ne jóge nañ ci loolu yi tamit bi nga xamee ne tamit seet nañ xale yi nga xam ne wax dëgg dañuy am problème yi bët école duñ mën a lire loolu tamit saay servi internet eh, intervenir na ci ba ñu def dépistage au niveau des écoles écoles maa ngi ciy gërëm la directeur monsieur Guèye loolu yëpp def nañ ko te buñ ko defee tamit dañuy référé yóbbu ko Louga Louga buñ ko fa yóbboo foofu danañ leen jox ay verres moins cher donc nga xam ne saay servi activité am yooyu eh, wax dëgg loolu la te ba léegi tamit mu ngi continuer ci TRACOM bi mais mu ngi bëgg a investir encore

jërëjëf euh, ci euh, ni ñu ko leerale noonu kon duñ ñëw ci lu dul suñu avant dernière question comme ni ñu ko tàmm defee saa su ne daaw bi ñu fi ñëw doon nga ñu expliquer li nga xam ne moo doon favoriser accident yi am au niveau de la route parce que doon nga ñu signaler tracom bi nga doon tudd tudd sànq mooy cataracte bi mais foofu li ñu bëgg ren mooy nga leeralal ki nga xam ne maanaam li nga xam ne moom la ñuy moytoo pour am jàngoro bi ki ko am nan lay def tamit ngir que mu mën a dellu ginnaaw ak chauffeur yi nga xam ne que ni dañu nekk ci euh, yoon bi di talax-talax ba xam ndax tracom bi moo leen di causé yenn accident yi wala yu demee noonu daaw am na message bu looñ si doon expliqué moom lañ bëggaat am ndax loolu mën nga ñu see dikkalaat wax euh, yaatu na ndax dinaa ci dellusiwaat ndax loolu euh, comme li ngay wax rek nit ñi moom buñ soxlaa rek xam-xam kenn amul fu nekk rek dañ koy luxati di ko jëriñoo ndax boo déggee ñuy wax xam-xam mooy kii xamle ndax boo amee xam denc ko loolu du xam-xam mais xam mooy xam-xam loolu tamit nga wax dinaa ci sawar ndax toujours bu ñu pèlerin yi màggal buñ ko waxee transport dugg na te transport buñ ko waxee chauffeur bi la ak oto bi ndax toujours dama koy wax ndax boo seetloo ren sax ñu ngi changé permis yi ndax toujours bu ñu waxee ne changé permis yi ñu boole ci groupage donc groupage boo ñu ci def tamit wax dëgg c'est à notifier maa ngi leen ci encouragé ndax bu ñu defee groupage chauffeur buy dawal war nañ xam groupe sànge am ndax bu dawalee te ñaanuñu ko yàlla dara am ca kooka normalement bu demee hôpital normalement bu ñu seetee rek dañ xam ban sang lañ ko war a defar loolu tamit c' une avancée mais nag l' essentiel à li des moom laay toujours di wax affaire permis il faut ñu boole ci fajkati bët yi il faut ñu boole ci neurologue yi il faut ñu boole ci cardiologue yi ndax boo déggee ma wax loolu ndax boo gisee ci euh, ophtalmologue di nga ñoo xam ne duñ gis couleur. ñoom moom la ñuy wax lekk ñi nga xam ne duñu am dañoo am problème de vision des des couleurs ñooñu mënuñu gis comme par exemple feu rouge ñoom noir blanc rek la gis kooku nga xam ne jàngoro boobu dal na ko bu ñëwee ci feu rouge du xam ndax rouge tàkk na kii kooku mën na def accident am na ñoo xam ne dañoo am glaucome glaucome boo ko amee le champ visuel est réduit di nga dem a dem ba doo doo gis sax sa rétroviseur te kooku tamit mën na indi musiba beneen bi di nga gis koo xam ne dafa am épilepsie danga am épilepsie épilepsie bi nag am na épilepsie boo xam ne grand mal la bi petit mal mais petit mal bi nga xam ne épilepsie bi bo ko amee cinq minutes mbala une minute mbala ay seconde mun nga ci daanu ba pare ñëwaat te loolu boo ci daanu ba pare ñëwaat mun na indi catastrophe li nga xam ne mooy cardiaque da nga gis ñoo xam ne mun nañ am problème cardiaque nga xam ne dañuy ñëw rek am benn affaire boo xam ne léegi seen xol arrêté mbala loolu mun nañ ci def musiba def ci accident ñi nga xam ne dañoo am ay problème yi da ngay toog ba ci yàgg sa tànk nagam loolu mënatoo jàpp embrayage mënatoo dëgg frein day am ci chauffeur yi ndax di nga gis koo xam ne dafay dem mag boo waxee ñu ne ma dal fekk du parce que ñoom ñoo fajiwut donc li nga xam ne moom lañ def neurologue ophtalmo cardio war jar na ñuy wax ndax boo gisee accident yi am yëpp loolu ñoom la li nga xam ne nag jëm na ci affaire yi bët moo tax toujours ñuy wax ne chauffeur yi nañuy sol ay lunettes lunettes yoo xam ne dina protéger bët yi ndax projectile yi kenn xamut dangay ngay dawalee fee benn projectile ne tëf mbala benn gunóor dal sa bët mais bu fekkee ne nga sol ay verre ci verre yi lay dal mais xoolal ngay daw allure ba pare ne ne tëlli sa bët bu ko defee bu fekkee ne sa bët mën nga perdre volant bi mun na kii mun na indi musiba ñi nga xam ne nag ñooy ñëw nekk ci màggal gi di dugg ci oto yi nañuy def ndànk buñ nangu ku len si charger ñeneen ni buñu duggé ci auto yi nañ jox ci chauffeur yi nañ respecté chauffeur yi té ñoom i tamit mom seen auto ñoo seen bakkan chauffeur buy dawal di def naka su du ngeen ne ko taxawal wacc bu ngeen gisé gendarme boole ko ndax léegi réew mi ñun ñëpp ko bok di lolu motax dal wax deug ci ku ba man dal lolu la def ñëpp nag niñ koy waxé rek pour Tracom bi ñëpp nañ xamné Tracom likoy koy wañé ko moy selmu, likoy gëna koy ko moy selmu ak ciat ndax fii cet gi kenn sëlmu sax buñ ko waxee dañuy yokkaat rek ndax ñëpp a ngi jàpp ndox mi am na kenn feyatu ndox muy Touba muy Daaru Musi kenn tu fi feyatu ndox ndax ku xëy di nga jàpp te léegi beneen beneen bi mooy environnement bi ñu wax yow seetlu nga ko kër yi ku ci nekk rek yaa ngi tabax di defar boo demee boo defar kër goo xam ne am na karo waaye war na am douche l'essentiel nag ci karo yi li ma ciy wax ay mag lañ yor douche yi day yaatu te bu tarxiisee mun na gaañ donc boo demee boo def karo na nga koy jël di fomp do douche bo xamne maga fay dem warta yaatu mbax bu yaato bu daano day bërëngu mais bu day douche bu yem mu nay wëru nga xamne ne bi du dal loolu moo tax wasalaam jërëjëf mbokk ñu doon top ñi ngi nekkoon ak yéen ci daru moti ci hôpital bu daru moti ci seen reportage spécial Magal édition 2019 kon nañ def lu dul jox a docteur ci cadre yu mujj yi mi taguto ak suñu auditeur euh de di la ñaanal yalla ne xamna ne am ñeneen ñu taxaw comme ki yore radio bi ak euh, docteur bi nga xamne moy mooy kilifa bi ci kii bi yow mënuma lay fay te dama lay ñaanal rek yal na la yàlla fayal boppam ñi nga xam ne mooy àndaan wi muy sa xale yi tamit wax dëgg yaa ngi wone te loolu laa wax ci xam-xam ndax ay gune boo leen wonee du yoone ndax ëllëg ak si biir yow ñun ñoo fiy des te ñooñu ñëpp bu ci yàlla defee tamit ah wax dëgg ñun daal man mënuma dara lu dul dama lay gërëm te di la ñaanal te di la sant merci beaucoup. mbokk yi ñu ngi seen reportage spécial bi ñu def ci édition 2019 du Magal daru Mouhty ñu ngi feggoog suñu jor ki nga xam ne moo nekk le médecin chef bi nga xam ne moo nekk ci poste de santé bi dañuy def lu dul jox ko kàddu gi mu nuyoo ak yéen ñu soog a mën a dugg ci biir waxtaan bi. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu waa Mourid Info di nuyu mbokk yëpp di sant ñëpp man maay docteur Mamadou Ndiaye man maay médecin chef district gu Darou ki bi rek mooy yan disposition ngeen jël euh, ci magal édition 2019 bi nga xam ne moom lañu dëgmal ci li mu war a am le 21 bii ñu jëgmal nii di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaanal sëriñ Abbas suñu borom yàggal ko fi may ko wér li mu naal naalam yëpp suñu borom sottil ko di sant bu baax sëñ Cheikh Assou fay di gërëm di sant sëriñ Bassirou Abdou Khoudous. Euh, ñu nag dispositif bi rek bi ñu jël mooy comme bi ñaan jël comme d'habitude rek maanaam dinañ am journée de consultation gratuit deux jours avant le jour J ak deux jours après mais tamit dina am ay postes avancés yoo xam ne dinañ ko def ci euh, ci dëkk bi yëpp. Il faut que c'est des zones de haute concentration et postes avancés rapidement en charge les malades yi nga aussi des cas graves au niveau du centre de santé de référence pour nous en charge waaw loolu la dispositif boobu daal la ñu la ñu et puis ak appui aussi euh, service d'hygiène ñu jàppale bu baax ci prévention bi mais aussi ak euh, euh, comment on appelle ça encore la Croix-Rouge sénégalaise moom aussi mi ngi jàppale bu baax ci liggéey bi donc loolu daal mooy dispositif bi nga xam dispositif médical bi moom la ñu et puis aussi am des appuis yoo xam ne ay médecins ak ay spécialistes aussi dinañ ñëw pour jàppale ñu aussi ci prise en charge maladie. kon duñ def rek laaj la yan mesure ngeen jël face aux accidents parce que gis nañ récemment bi ñu ñëw rek am nañ benn cas boo xam ne ko ci yoon wi destination de Touba euh, yan mesure ngeen ñi ngeen jël pour faire face à cette fléau. les accidents moom def nañ dem benn réunion déjà avec la la la mairie def nañ CRD am aussi émission radio. yu ñuy def rek pour communiquer pour prévention pour nit si di daw ndànk def ndànk am aussi des postes avancés yoo dag nañ ko dans les zones les plus sensibles comme fu mel ni Ndoyeen xam ne accès la c'est très fréquenté amé ay problème rek rapidement ñu mën leen jël en charge évacuer leen yob leen dans les hôpitaux yi nga xam mo gëna gën en tout cas la prévention mom lañ teg comme euh, comme stratégie de mise pour mëna ar nit ñi en tout cas yé leen ci ci accident euh, docteur man bi ñëwé ñëwee sama tank ci buntu bi dama gis carte de travail bi am ben amélioration bu nga xaw ne xaw ma ci euh, dans un laps de temps ah, ndax tay mënu ñu ñoo digal ci lan moy ce secret yow mi ñu fi fekk tay suñu borom teg la fi ak ban collaboration nga am ak sa équipe technique pour que mëna réussir lu mel bon lii nag sañ ci sant yàlla rek dañ sant yàlla bu baax parce que jàppale la boo xam ne ñun ñoo am idée bi yéene bi ak xel bi xalaat bi mais doole bi ak kattan bi maanaam population bi ak bonne volonté ñoo si jàpp ba nga xam ne lii nga xam ne moom lañ tàmbalee ñu bëgg aussi ñëpp jàpp ci ba ñu ñu ñu ñu yaatal ko ba mu egg ba ci poste de santé yi parce que comme li ñuy wax rek amuñu secret mais bëgg nañu daal fii nekk le district le plus performant du Sénégal donc loolu la ñu bëgg moom la bëgg a def aussi bëgg nañ ko def ci prise en charge bëgg nañ ko def aussi ci accueil ak orientation mais aussi ci ci hôtellerie maanaam ci cadre d'hospitalisation et de travail donc loolu la ñu commencé moom la bëgg a def nii amna aussi ñu ci jappalé bu bari nak vraiment ñi ngi sante bu baax communauté bi ñi ngi sante serigne ci kilifa gi kilifa yi ñi ci jappalé bu baax sante aussi fondation Cheikh Amadou Bamba indi nañu fi tay matériel bu à hauteur de 200 millions ak yeneen fondation mais vraiment dal ñi ngi sante ñep di bëgg dal ñep japp ci pour que hôpital bi aussi may nek sax centre de santé mais mu nek une clinique nga xam bo boo ñëwee fii du am ben différence entre centre de santé bi ak les cliniques yi nek de la place parce que japp nañu ñun clinique ak fi yëpp ay médecins rek ñokay animer donc volonté bi ak peut moyen mom moy mooy différencier mais ay nit ay bokk fiñu jangé jàngee bokk fi ñu génnee ñoo donc tamit mën nañ jàpp dal cadre bi ci volonté la té ñu ngi ci dox té ñu ngi ñaan ñëpp jàppale ñu ci jërëjëf. def ci yoy leeral euh, à moins de 72 heures du magal euh, ndax mën nga ñoo ñëwal ci renforcement de l'équipe équipe euh, ressource perso ressources humaines bi nga xam ne que ni oh, tey yaa ngi koy xaar ngir mën a dérouler sa sa plan de travail durant le magal et après le magal Déjà, suba rek normalement wa Croix Rouge dañuy ñëw Déjà, ICP yi ñu commencé di ñëw dank dank dispositif ñu koy installer progressivement les postes avancés ñu les leen di yóbbu SF matériel bi ñu koy indi euh, donc logement hébergement les lépp ñu à koy commencé en tout cas di taxaw donc on attend vraiment sereinement le jour J pour que ñaan yalla aussi ñu magal ci jamm avec zéro accident zéro zéro zéro décès zéro maladie grave ñëpp ñaan yàlla euh, màggal ci jàmm suñu borom nangul ñu suñu màggal mu nekk xéwal ci ñun ñëpp waaw loolu daal laa bëggoon tëjee di leen sant bu baax di leen gërëm ci déplacement bi jërëjëf. waaw ah, kon ñoo ko déggandoo mbokk yi ñi nga àndoon ak docteur bi nga xam ne que moom jiite district sanitaire bu Darou Mouhty ñu doon seqaloo ma waxtaan ci lu jëm ci wàccaayu màggal édition kon ñu ngi leen jox digg daje ba beneen yoon ci beneen reportage jërë